xidmati wa ab lahum maaraamoo dafa am gëstu boo xam ne dañ ko doon def ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ci doomam yi te sëriñ bi doomam yépp tur yim leen tànnal góor ak jigéen dafa dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa te loolu moo ko waxal boppam xaltu nafsi wa jamihi ahli fi jaybi afdalil warasil fadli nafsi wa diini suma ahli walwalat wa maskani làkka wa di hatun abat sëñ Abdul tam wax ne koo xam ne ba mu amee taaw Muhammadul Moustapha la ko tudde ba ca keneen toppee Muhammadul Fadal la ko tudde ba ca keneen toppee Muhammadul Lamin la ko tudde ba ca keneen toppee Muhammadul Bachir la ko tudde loolu wone na ne kenn amul ci moom ab cër ku dul Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomi boroom Tuubaa yi nag seenub lim lu yéeme la ndax juróom benn fukk lañ ak juróom benn te loolu boo xoolee tur suñ borom wi ñuy wax Allahu juróom benn fukk la ak juróom benn waaye Bàmba Mbàkke boo ko xoolee juróom fukk la ak juróom doomi borom Tuubaa yi nag dëkk yi nga xam ne fa lañu tëdd mooy Tuubaa Daaru Alimul Xabiir mbàkke bawal xuru mbàkke mbàkke kajoor mbampuna kër mandumbe gede buso gede buso nag ci Touba la waaye dafa am ko fa beru moo tax ñu tuddaale ko am na tam ñaari doomi sëriñ bi yoo xam ne ñu bari xamuñ leen ndax sëriñ bi am na ay seex muy sëriñ Assane Mbacke ak sëriñ Ousseynou Mbacke sëriñ Assane Mbacke ak sëriñ Ousseynou Mbacke moom yi seen waajur wu jigéen mi ngi tudd soxna faati asan jóob soo demee ci téereb sëñ Moussa Ka bi mu tuddee mat la matlabul aajaati tudd na fa seen turu waajur tudd fa seeni tur ñoom ñaar am na fu mu wax ne bi ummi naa mañ tuddee faati asana may nu useynu dellu may nu asana ñoom nag dañoo yàgg ndax jiitu nañ géej ga seen waajur tam dafa mujjoon sëriñ bi jox ko sëriñ bu so ba moo jur sax sëriñ Baaxir Buso am na ci kër sëñ Mbàkke lu mat fukki bant waaye sëñ Baaxir ci ñiñ ci gën a xam la moo tax ñu tudd aw turam sëriñ Baaxir moom itam mooy waajuru sëriñ Moustapha Buso mi nga xam ne mooy jiite ci jumaa yi Gédé Buso te lii tam ci moom la ñu ko jële sëriñ bi tam am na doom ji tudd sëri soxna bu Mbàkke soxna bu Mbàkke nag moom itam li tax ma koy tudd mooy dama gisul maanaam barabam waaye boo demee ba léegi ci téeréeb sëñ Moussa Ka boobu bi muy ñaan ci barkeb doomi borom Tuubaa am na fu mu wax ne ci darajaay Saynabu Umu Kalsuum yàlla na sëriñ bi rafetal suñuy doom kon soxna Saynabu Mbàkke moom yi ci doomi borom Tuubaa la nekk gisuma barabam waaye njortu naa ne Mbàkke Kajoor la nekk donte nag barabam gisuma ko waaye loolu laa gën a njort ci gëstu yi nga xam ne moom laa def su ko defee nag kon ñu limal leen doomi borom Touba ak kenn ku nekk fañ ko denc juróomi doomi Serigne Touba ñoo nekk ci jumaa ji cheikh Mohamadul Moustapha cheikh Mohamadul Fadal cheikh Abdul Xaadir Mbacke cheikh Saalihu Mbacke cheikh Mohamadul Mourtada Mbacke benn doomu seriñ Touba moo nekk daaray Kaamil Cheikh Abdoul Ahad Mbacke benn doomu borom Touba moo nekk ci buntu armel yi soxna May Mbacke Zuhra mooy soxna May laylatul xadar benn doomu Serigne Touba moo nekk daarul Minan muy Cheikh Mamadul Bachir benn doomu Serigne tubaab moo nekk pencum Serigne Souhaïbou muy Cheikh bu Mbacke fukki doomi Serigne tubaab ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armel yi nga xam ne ñoo nekk ci penku jumaa ji. cheikh Mamadou Lamine Mbacke di sëriñ Baara cheikh Abdoulahi borom dër bi cheikh Ibrahima Mbacke cheikh Aboubacrine Mbacke cheikh Mamadou Kabir Mbacke cheikh Abdou Samad Mbacke soxna Fat Dia Mbacke soxna Astou Gawane Mbacke soxna Mbène Ngaabu Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna May Al Kubra soxna Mominatu Mbacke soxna Xadijatu Mbacke soxna Xadija mii moog sëñ Abdou Xaadar ñoo bokk waajuru jigéen. soxna faatimatu Penda Buyo Mbacke soxna Muslimatu Mbacke soxna Marema Kunta Mbacke soxna Ami Cheikh Mbacke soxna Diop Mbacke soxna Fatimatu Mbacke ñooñu ñooy fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji fukki doomi Serigne Touba ak juróom ñoo nekk ndaam daaru alimul xabiir cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Muhammadu Abdullahi Mbacke cheikh Abdul Muhayminu Mbacke. cheikh Abdoul Baaxi Mbacke cheikh Mouhamadul Muxtaar Mbacke cheikh Aboubacrin Mbacke cheikh Amidoun Mbacke cheikh Mouhamadou Abdoulahi Mbacke cheikh Abdoul Khoudous Mbacke cheikh Mouhamadul Kabir Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna Tahiratu Mbacke soxna Maymunatu Mbacke soxna Maskuratu Mbacke soxna Roqeetu Mbacke mooy fukki doomi Sëñ Tuubaa ak juróom yi nekk ndaam ci benn barab lañ nekk ñoom ñëpp. fukki doomi sëriñ tubaa ak benn ñoo nekk xuru mbàkke kenn rek moo ci beru fukk yi ñoo bokk benn barab buñ nekk ki beru mooy sëriñ abdou salaam mbàkke ñi ci des nag fukk yi mooy cheikh mahamadou abdoulahi mbàkke cheikh abdou jamil mbàkke cheikh abdou wahab mbàkke cheikh abdoul baaxi mbàkke soxna aminatu mbàkke soxna salimatu mbàkke soxna mariama mbàkke soxna muhsinatu mbàkke soxna fatimatu bintu mbàkke soxna mariama mbàkke ñeenti doomi Serigne tubaa ñoo nekk Mbacke Bawal Cheikh Mouhamadou Yeddaali Mbacke ma ngi jaay yéen Cheikh Mouhamadou Abdou Khadir Mbacke mi ngi ci barabu Serigne bu soobe ci armeli bu soobe yi Cheikh Mouhamadou Kabir Mbacke ak soxna Fatimatu Mbacke ñu ngi ci wetu stade bi loolu nag xam naa ñu ngi koy jégglu waaye euh, foofu tam la sëriñ bi ganee jamono lañu wax moo tax sax njabootu Maamoor Jaara borom saam lu baree bari danañ faral di wax ne barabu fowukaay boobu dañ ko fa war a jële ndax dafa jege lool fi sëriñ bi ganee jamono kon ñoom foofa lañu nekk euh, benn doomu sëriñ Touba moo nekk Mbàkke Kajoor boo xam ne gis nañ barabam muy soxna astu Kajoor soxna Sayna bu nag njortu nañ ne fa la nekk waaye leeruñu waaye ci doomi borom Touba la bokk ñaari doomi sëriñ Touba ñoo nekk na Mbampuna na nag mi ngi ci ginnaaw ndulo soo jógee Mbàkke jëm ndulo boo rombee ndulo tuuti boo xoolee sa wetu càmmoñ da gis benn tableau bu ñu bind mbàmp na soo ko laajtee ñu wan la ko foofa ñaari doomi borom Tuubaa fa nekk muy soxna Umu Kalsum Mbàkke ak soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadija mi itam moog Cheikh Mamadul Bachir ñoo bokk soxna Fatima du Maame euh, benn doomu Serigne Touba moo nekk Kër Mandumbe Kër Mandumbe nag ma ci yoonu Louga dëkk bi ñuy wax Njaañ nag la nit ñi di gën a miin waaye boo fa demee danañ la won dëkk ba benn doomu Serigne Touba moo fa nekk muy Cheikh Mouhamadou Abdoulahi benn doomu Serigne Touba moo nekk Gédé Bousso muy soxna May Muunatu Mbàkke moom nag ku yàgg la ndax 1914 la gane jamono moog sëñ ñoo maase yaayam tam mi ngi tudd soxna Sayna bu Mbàkke moom sëñ Mbàkke moo ko jur bi mu ganee jamono nag euh, dafa fekkoon sëriñ Touba sédde waay juróom wu jigéen sëñ Mbàkke buso muy càmmeñam mu dem fa nag gane ji ko mu wàcc fa liggéey ñu yëgal ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofu ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya donte barabam nag eh, yombut la gis waaye ci biir armeel yi lañ ko denc ndax dafa yàgg lool muy soxna May ñaari doomi sëriñ Tuubaa yi des muy Asan ak Useynu te ñu bari xamuñu leen moom itam jëlee naa ci kilifa gu baax a baax a baax mu wax ma ne ñu nga leen denc fas ture waaye loolu dafa jiitu géej gi moo tax ñoom itam gis seeni barab yombut waaye foofa lañ nekk lii mooy juróom-benn fukki leeri Serigne Touba ak juróom-benn yi nga xam ne def nañu ay gëstu yu leer a leer a leer tudd seeni tur ba pare gis seeni barab ñetti barab képp lañ ci gisul waaye juróom-benn fukki barab ak ñett yépp ku ko bëgg a gis mën nañ la ko won ñett rek lañ ci gisul muy barabu soxna Seynab Mbàkke teewul nag ñu njortu ne ma nga Mbàkke Kajoor barabu. sëriñ Assane Mbacke ak barabu sëriñ Ousseynou Mbacke jëlee nañ tam ci kilifa mu wax ne ñu nga fas ture waaye dañoo yàgg moo tax bañ fa demee tam gisuñ leen waaye wér na ne ñoom ci njabootu sëriñ bi lañ bokk ndax waxoon naa léegi bayit wi nga xam ne ci la sëriñ Moussa Ka tudd seen waajur ba pare tuddaale leen bi ummi naa mañ tudde faati asana maynu Ousseynou dellu may nu asana te soxna faati asan Diop moomu nga xam ne mooy seen waajur mooy waajuru sëriñ baaxir buso moom sëriñ bàkke boso te soxna soose am na ak sëriñ bàkke lu jege fukki bant ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko lii nag lu tax ñu def ko mooy sëriñ bi njabootam waruñoo réer war nañoo fexe ba xam leen war nañoo fexe tam ba tur yi ci gën a siiw nga xam ne murit yi am pësteef yépp te bëgg njabootu sëriñ bi ñu bari ci ñoom tudde nañ leen ay doom mel ni Cheikh Mamadou Sow mel ni Cheikh dul Fadal mel ni sëriñ Saalix ak ñeneen ak ñeneen ci ñi nga xam ne toog nañu xalifa ak seeni jigéen ku mel ni Soxna May ku mel ni Soxna Fadja ñooñu nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax ñi nga xam ne xamuñ leen tam war nañoo fexe ba seeni tur sax fi ngir sëriñ Touba moom lépp lum laal day jëm kanam rek di jeeb bi di naat bëgg guñ bëgg nag ñu fàttaliku doomi borom Touba te xam seeni tur loolu moo tax ñu def téere bi tuddee ko yoonu ziyaara barabu doomu boroom Touba te Sëriñ Touba loolu daf ko ñoroon ba tax mu wax ne zur man tuhibbu wa in zatat bika daaru wa xaale min dunihi sahlun wa awhaaru laa yamna annaka buxdun min ziyaaratihi innal muhibba liman yahwaahu zawaaru kon ki nga bëgg a ziyaare bu ay montagne doxoon sa distance ak moom tam war ngaa fexe ba jiim ko ziyaare moo tax ñu defar téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom Tuubaa ñu ngi ñaan nag képp ku tekkalu ci téere bi wala kàddu yi ba ziyaare doomi borom Tuubaa yi yàlla defal la njéggal te defal ñu ko ci seen barke ak barkeem moom sëriñ bi am na tam ak ñaan guñ def ci téere bi goo xam ne sëriñ Tuubaa nee na képp ku may ñaanal nag ma jàngal ñaan goo gii moom Serigne Touba moo ko waxal boppam leeral gi nga xam ne moom lañuy mujj nag ci liggéey bi mooy fukki doomi sëriñ Touba ak juróom-ñeent ñoom ñoo am ay photo kon li des ci njabootu sëriñ bi ñoom amuñu photo yu ñu leen mën a xàmmee waaye fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo am photo mooy Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal Serigne Abdoul Ahad Sëñ Abdoul Khader Serigne Saliw Sëñ Baara Cheikh Mamadou Bachir Cheikh Ibrahim. sëñ bu sëñ Abdou Samad sëriñ Abdou Mbacke mooy sañ borom dër bi Cheikh Mamadou Mourtada mooy fukk ak ñaar ci góor ñi ñi nga xam ne am nañ foto juróom-ñaar ci jigéen ñi ñoo am photo muy soxna May Alkubra soxna Momi soxna Mbenn Gaabu soxna Musli soxna Ami Cheikh soxna May Suxra soxna Asu Gaawaan kon ñooñu ñoo ci am photo bokk yi nag. maa ngi ñaan képp koo xam ne jot na audio bii tey soppeeb sëriñ Touba wala muy soppeeb doomi borom Touba yi maa ngi ñaan mu jàllale ko mbokkum taali bi ba mu jot ko ba su fekkee ne munta am téere bi tam ab noppam njabootu sëriñ Touba gépp dugg ci ndax loolu jàpp nañ ne mën naa jur texeg àddina mën a jur texeg àllaaxira képp koo xam ne tam jot na audio bi te am lu muy sikki sàkka ci lim bi nu joxe walla tur yi su bëggee jokkoo ak ñun ngir yeneen leeral sunu woowee ci 77 874 39 00 wala mu wooñu ci 76 585 79 67 lépp lu ci bëgg leerlu danañ ko ko leeral ojo bi itam defuñ ko ngir publicité téere bi waaye dañ koo def rek ngir ñëpp mënuñu jot ci téere bi te ojo bi ñëpp mën nañ cee jot waaye képp ku bëgg téere bi itam su jokkoo ak ñun inchaa allahu taala defar nañ ci lu yaatu yaatu ci ndigalu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëñ Abdou Lahad mii suñu sëriñ kon ñu ngi ñaan ku jot ci audio bi jàllale ko yal na nga dajeeg wax di awaa ijja lazina daamu fii xidmati wa ablahum maaraamu di sëriñ Tuubaa ñaan ne képp ku ma liggéeyal suñ borom dana la may li nga bëgg ci àddina may la li nga bëgg ci àllaaxira ku jottali ojo bi yàlla na suñ borom jottale loola ci barkeb sëriñ Tuubaa maa ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala